asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun dañu seetaan te dañu déglu fu nu mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi toogaat fii ci kanam cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi nga xam ne saa yu jógee ci ndigalul Serigne Touba cheikh Mouhamadul Mountakha lay jóg ak ci kàddoom ñu déglu ndigal li bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa jaar ci Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne moo di rakkam te yore kàddoom di fàttaliwaat tam li nga xam ne ndigal la loo xam ne dafa bàyyikoo ci moom mu di ko santaane jëm mu jëm ci dëkk bi hmm. loola moo di gis nañ ne euh, assainissement bi nga xam ne defoon nañ ko ci dëkk bi daaw mbënd mi mettoon na ci dëkk bi waaye la ko gënoon yokk mooy taw yëpp dafa fatt hmm. loolu nag sëriñ bi wax na ne eh, da cee joxe ndigal tey bëgg taali bi yëpp góorgóorlu ci farlu ji ndax eh, commune bi nañ xam ne alali sëriñ bi ña fa ne sëriñ bee leen fa teg kon ñoom bu fekkente ne ci seen loxo la loo ko teg itam nit ñi waruñoo toog leen seetaan nañ xam ne njabootu sëriñ bi lañ alali sëriñ bi kon loola eh, la ñoo xam ne kon gàttandu leen ci loolu bokk na ci liy dimbali moo tax sëriñ bi jox ndigal la sëriñ Cheikh Mbacke mi sëriñ Abdou Latif bi nga xam ne lépp lu aju ci loolu ci loxoom la ko teg euh, muy mu di ci taxaw taxawaay bu rafet at mu jot yéen a ngi koy gis sëriñ bi joxaat ko ndigal moom dana ci sàddi kàddu waaye dana dajewaat ak yéen yéen daje wax leen ni mu ko xalaatee ak yéene jëm ko bëgg a defee waaye sëriñ bi xam ne dal joxe na ci ndigal ñu jàppale ci commune bi ndax bu soñoon. ñu agsiwaat ci nawet muy mel na meloon daaw wala moo ko yées mm-hmm. loolu kenn bugg ko te kon noonu taalibe nañ xam ne loolu ñoo ko jariñoo mm-hmm. te bari na ci ñoo xam ne dañoo fekk fii nga xam ne assainissement boo xam ne ndoxum taw moo fa jaar mm-hmm. ñu jël seen foos yi ci biir kër yi branché ko ca loolu mbir la moo xam ne képp ku ko sëti ku koy sëti ku ne war ngaa dem ci ñëw ñëw dëkk bi nga yëgal leen ko ñu fexe nañ ko saafara ndax loolu taxu koo jóg assainissement boobu ñu ngi koy tàmbali waaye dañ koy door tàmbali àggagut kon assainissement bi fi nekk ndoxum taw bi tax jóg mhm. te loolu ndox mi day jaar fu kon loolu waris na ko bàyyi xel ñi nga xam dañuy jël mbalit di ko sakk ci biir eh, fi nga xam ne fi ndox mi jaar mooy loolu moo wax bokk na ci li gën a indi gàllankoor loolu nag la sëñ bi joxe ndigal ngir bëgg ñu góor góorgóorlu ci ndax bu soñoon nekk ci dëkk bi ngir wuy si woote Sëriñ Tuubaa ba noppi nekk ci tumuraanke diis na ci moom kon mu ngi nuy ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ni mu ko diglee ñu feexe ba defe ko noonu ndax a Cheikh Ibrahima daa wax ne liggéey li liggéeyal Sëriñ Tuubaa wàcc kenn te war na ñëpp mhm. kon nag euh, bu ci sëñ bi joxe ndigal ni ñëpp xam ne seen njëriñ ci nekk mhm. te euh, Cheikh Abdoul Ahad wax ne euh, li am solo ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy façon gi waaye na may fexe ba mu sottoom nekku ci suñ loxo ci loxo sëriñ bi la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf suñu jëwriñ yu baax yi loolu bu ma ko waxee mën naa wax Cheikh Mouhamadul Mountakha mi sëriñ Touba waaye ma wax Cheikh Mouhamadul Basir mi li tax ma wax cant yooyu nag danañ sant suñu boroom ñu nu booleeg sëriñ Touba ni ko sëriñ Mountakha di waxee. sant Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne amul lu moom te moom rek lan soxla am waaye boole nu ci njabootam gi muy liggéeyloo di ko nuy sant ci boole googa waaye cant gi nag faaw ma excel ko ci ñi nga xam ne ñoo tax bu liggéey Sëriñ Tuubaa jógee ñu xalaat nu te mooy Cheikh Mamadou Mountakha Cheikh Mamadou Bassir mii xalaat gii ñu nuy xalaat ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci dëkkam bii loolu sant la cant xam na ne dañ na ci fàggul ci aw yiw kenn mënu natt kon dañuy sant rek bon sant ba noppi nag ñuy fasoo jafe ndigal fu ko déggee waaye di fasoo waaleel taalibe yëpp yàgg nañ noo yónni ci taalibe yi ndigal luy jëm ci liggéey waaye fuñu ko yëkkatee taalibe yëpp a ci ànd ba defe ko na ko sëriñ bi bëggee sëriñ Basiiru mii yàgg na ma jox ndigalu sëriñ Tuubaa mu jëm ci setal dëkk bi waaye buñ ko yëkkatee taalibe yëpp lan koy àndal te na ma ko daan waxee mu tàmbalee ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Cheikh jëmb laay njëkk a dem ba ma sëñ Masaan yebal te lii noonu laa koy defewaat ba noppee nu dajalewaat nag bokki taalibe dëkk bi yëpp njiite daayira yi ak njiite mbooloo yi nan ko daan defee ba nu waree setal dëkk bi muy mbale ma ndax lii day liggéey bu rëy bu am solo itam ndax ñu koy waxee balaa kenn mën def dara set daa waaye mënuñoo bale mu set ndox mi taafi rawaati nawet bi jëm ci biir màggal gi taataa yi ànd ak salte yi ne ci kaw tali bi wala ne ci kaw mbedd yi set di mën a am kon ñaari liggéey faw ñu ànd te kon bii moo war a njëkk ñu sekkar ci kanaal yi ba bu tawee ndox mépp dem bu mbalit mi desee ci kaw nag nu bale ko tonni ko balaa màggal gàddu ko kon dimbale ci gàttandu ci sunu liggéey gàttandu googu itam nun dana waroon bis bu set buñ xëyee nun ñëpp nu dem liggéey li Sëriñ ndax ni ma koy waxee lin waroon na liggéey ngir am ko nun sëñ Touba dañu ko indi yombalal ñu ko kenn ku nekk xam na dëkk Touba ni muy yombale ak dund te loolu pàgguteefu sëriñ Touba la kon nag waxtu wu ñu wootee ne sëriñ Touba soxla na taalibe yi taalibe yëpp dañoo war a bàyyi lañ doon def bala sëriñ bi def lu ñu def ko ba noppi te danaa wax ci soññee yi ne waxtu wu ñu déggee baatu sëriñ bi bàyyi suñ bopp dem ca sëriñ bi buñ delsee dana fekk sëriñ bi yombalal nu wala wóotanu ci suñ bopp loo xam ne suñ pexee boppi kese mun na koo may lu yàlla lay doon lu jaar ci Sëriñ Tuubaa egsi ci noonu waaye loolu nag lay doon njëg gi mooy waxtu wu ne nuy yeesal suñ pas-pas di yeesal suñu jaayante di yeesal suñu yitte ci buñ déggee baatu sëriñ bi bala noo amati seen soxla bala noo defati dara loola nañ ko def na ko sëriñ bi bëggee kon loolu nag lay tàmbalee woote bi ni ko sëriñ bi waxee bu buñ yégee ne am na ndigal li waxtu ñu ci war a jublu nag ak nañ ko war a waxtaane waat ak nañ war a wootee waat lépp daanu ko def ba defee ko ni ko sëriñ bi bëggee ci diggante boobu itam jëwriñ yi kenn ku neen tàmbali am xalaatam ca lay yombal liggéey ba la koy baaxal la koy defaral ndax daanaay wax ci suñu réunion yi njëkk ngir mbale mooy nan am jenn yitte mooy li sëriñ bëgg nu defal ko yitte jooju bu ñu ko amee nag kenn ku ne di ci génn sa xalaat kenn ku ne ci sa pastéef kenn ku def ci sa taxawaay yomb rek lay mën démb am na ko may waxal ne ko taalibe liy ndimbalam mu am pastéef ba nga xam ne du am jënn yitte judul déglu ndigal te bu ko déggee fas ko yenn jëfe kon sëñ Basso leeral na nu ko léegi na ko Seex Abdu Lahat waxee bu ko fasee jëfe rek sëriñ bi moo nuy won na ni jaar ba jëfe nga am ndax sëñ bee ko yorul boppam kon sëriñ bi maa ngi nangu di façon di feddali di ko defaale taalibe yëpp na ngeen ko bëggee danañu ko defee incha allahu na mu daan demee mu demee nii na ngeen ko bëggee ngeen amee ko ni nu itam bu nu fa jógee loolu bëgg mu yomb la nu amee ko noonu ngi sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah bokk na ci nag ab taalibe bu déggee ndigal fasaasa mu daal di koy jëfe ana ñan ñoo war a jiitu ci jëfe ndigal li mooy ñi nga xam ne ñoo tax ñu joxe ndigal li te ñoo branche la seeni foos ci kanaal bi bi ñu déggee ndigal li rek fasaasa dañuy xam ne buñ ko defutoon sëriñ bi du defee joxe ndigal li kon dañ ko war daal dindi fasaasa ñi nga xam ne dañuy jël seeni mbalit di ko sotti ci canal bi ñu xam ne ndigal loolu ñoo tax sëriñ bi joxe ko su ñu ko bàyyee rek suñ ko dindee dara dootu fa amaat kon nag ndigal laa ngi noonu bàyyi ko ci cheikh Mouhamadul Mountakha jaar ci cheikh Mouhamadul Basir ñëw ci sëriñ cheikh Abdou Latif ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko daan jàppale ci wàllu bale dëkk bi rawatina njabootu maam cheikh Ibrahima Fall ak daayira yi ni ci dëkk bi yëpp kon ndigal li tàmbali nañ ko nañ ko fas yéene jëfe tey ñaan sëriñ tubaa xaadim rasul mu yàggal fi sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa waa yàggal fi jëwriñam yii di cheikh mahamadul basir mi yore kàddoom ak jëwriñam di sëriñ di mbàkke mu cheikh abdoulahat ak mboolem sëti sëriñ tubaa yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu